aouzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim allahuma salli ala sayidina muhammadin wa sallim ñu ngi waajal uh, bisu xasida bi nga xamante ni moom moom la ñuy amal at mu jot ci Amérique bii ñu ngi koy amal Touba Nashville incha allah 15 avril bi ñu jëm bu soobee yàlla uh, waxtaan nañu sëñ mi bëgg a toog sëq ak sëñ Basiru Mbàkke Xelkom nag moom mooy uh, ab yëgle rek boo xam ne day jëm ci bisu xasida bi ak it bu ñu nekkee laaj ko tuuti ay leeral ci xasida yi. moom lañu indi woon nag euh, mu ñëw bërki dem ngir ñu waajal bis bi moom moo war a waxtaan bis bu soobee suñu borom kon bismillah sëñ Bass xanaa ñu jox la rek nga wéyal bismillah. sëñ Modou ñu ngi leen di delloo nuyoo di leen delloo ab ziyaara di leen ndokkeel ci bis bu màgg boobu ñu dëgmal mhm. di ñaan suñu borom mu yóbbu ñu ci ak jàmm di nuyu mbokki taalibe bi yëpp fii ci biir réew mi di Amérique. ak ca bitti ñu ngi leen di nuyu di leen siyaare di leen ndokkeel ndax bés bi noo ko bokk di am mbégte lool ci jataayuwaat ak yéen ci ren jii daaw ñu defoon ko ñu ci sant suñu borom ndax nit ki lépp lu mu def daaw ren jii mu def ko ànd ak tal ak fekkee rek war na caa sant yàlla kon ñu ngi sant bu baax. di gën a kon nag wax ji moom mi ngi jëm rek ci soññee ba tey rek ñu daan soññee ci bis yu mel nii damay wax ni. Euh, sëriñ bi sëriñ sëpp ku ci ne rek dafa am yoon wu muy jaar ngir euh, jubbanti aw nitam ak ngir teg leen ci aw yoon ak ngir leen won won leen yoonu yàlla won leen rek yoon wi mën a amee gërëmul yàlla moom nag yoon wi mu tànn euh, mooy xasida yi te mooy julli ci yonent bi ak tàgg ko xidma daal liggéeyal liggéeyal yonent bi sans ci la jaar kon xasida yi sëriñ bi moo moo ci daan liggéeyal yonante bi sallallahu alayhi waaye ci biir loolu it eh, ak defaram defar gi mu war a seq ak i taalibeem lu mm-hmm. ci bari def ko ndaxañ ci biir xasida yooyu ndax eh, ni kilifa yu baax yi daan def mm-hmm. eh, ku ci ne boo fi nekkee di tarbiya say nit boo fi boo demee ba war fee jóge it suñu borom jox la werd werd di li muy tekki mooy tariqa mm-hmm. werd boo xam ne boo ko fi bàyyee day mel ni yaa ngi jëmmoo ak ñoom di leen jubbanti di leen teg ci aw yoon Euh, mu mel ni mbootum awraad yooyu yëpp nag moom def na ko ci biir xasida gi moo tax euh, ba muy euh, tagg ca Masaalikul Jinaan ba muy leeral ngëneel yi am ci sikar zikru wax na ngëneelul bismillahi rahmaani rahim wax na ngëneelul laa hawla wala quwata illa billah al azim wax na ngëneelul hasbunallahu ni'mal wakil wax na ngëneelul julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waaye ba mu ci agsi nag daf man daf ko jox gëdd gu leer ndax dafa wax ne amma salaatuna ala nabiyi muhammadin xayri bani lu ayi fa hiya ajallu ma tamassakta bihi baada ada il fardi faltanta bihi mu wax ne julli ci yonante bi sallallahu alayhi wasallam moom gannaaw boo joxee sa farat mooy li gën a rëy ci uh, mooy lu gën a rëy ci loo téye kon loolu daa cee teg sax ni xad nas sa cheikhuna sanusi yu radiya anhu dahra rabbuna latif bi annaha tugni anil murabbi li jasbihi lfata li qurbil xibbi mu ne euh, imaamu Sanusi sax yaxal na ne julli ci yonante bi doy na walis nit ki di am seyxul murabbi boo ko bari dee ngir def lay xëcc nga jege yonante bi sallallahu alayhi wasallam mu mel kon ci bayit woowu rek danañ ci déggee li mu wax ci xasi ci biir xasidaam yi la xasida yi ginnaaw génnul tagg yonent bi ak julli ci yonent bi ndax dafa xaaj at mi juróom benn ñaari xaaj wax ni euh, juróom benn weer da koy tagg bi juróom benn weer yi mu koy julli ci yonent bi sansom bayit woowu rek moo firiwaat li mu wax ci biir euh, bay xësidaam gi wax ni kitaabati euh, dafa wax seen wasilu aqlaami ilallahi aabidan bilaa xalwatin samay xalima mën naa eggal nit ki ci yàlla ci dootu muy dugg xalwa delluwaat wax ni Euh, kita euh, delluwaat wax ni mm, euh, kitaabati faaxat si yoo xam tarbiya ku la mhm. sama mbind kawe na sëriñi tarbiya kawe yëpp yow wa si yoo tarxiya mhm. ak sëriñi tarxiya yi mhm. day mel ni bayit bi yaa moo xam ci julli ci yonent bi sansom moom la laat fii ci biir bi muy wax ci biir xasida yi nii moo tax rek ma ni ab soññ lay doon ci murit bu mën a doon rek mu fonk ko te lu ñuy def ci kenn di ko def rek moo ànd bu ñu doonee ñaar def ko ci day ëpp doole bu ñu doonee ñett def ko moo ci ëpp ci doole bu ñu doonee ñeent def ko bu ñu doonee téeméer def ko bu ñu doonee junni def ko lu ñu gën a bari rek bu dee lu baax la ca la yiwooy ëppee ndax euh, yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ci xadis bu wér ni jullig mbooloo gën na jullig kenn ñaar fukki yoon ak nangam am na ñu koy def ñaar fukki juróom ñun ñaar fukki waaye loolu rek danañ ci dégg ni dañ ciy dégg ñun ni lépp lu mën a doon ci aw yiw ñu booloo def ko mu ëpp doole kenn képp di di ko def kon léegi ñu ngi gën a soññi euh, talibi bu baax ci euh, loolu yi ndax buñ ko defatoon di def leneen ndax nit ñaa ngi dajaloo euh, di dagg ay billets yu cher ngir di seetaan ay làmp ñi dajaloo dagg bii yu cher ngir di seetaan football ñi dajaloo di seetaan ay woy loolu kon saa buñ dajaloo luñ ca def ci wërsëg te lépp ñu jublu ci rek fàkk fàkk sàkku ngërëmu yàlla ak delluwaat ci yàlla ak fàttaliku ko loolu taw feex féetu kaw ñi koy def ak ñi ci jàpp moo tax mu ñu ci soññ mbooloo mépp ñu jàppale leen ci te ànd ko yéen di ñaan suñu borom mu defal ñu ci taw feex eggal leen ñu ci ci jàmm euh, lépp luñ ci def ci aw yiwit mu nangul na ko euh, fulal na ko làqal na ko fa yàq yégul innahu ala zalika xadirun wa ijaawati jari sant nag mboolem talibi bokk talibi yëpp ci rafet njort gi ñu am ci man wowoon ma daaw te ñu waar ma te ñu war a mën a woo bari nañ lool ma jàpp sax Euh, lu ñu may defal rek mën naa am sax fii rek ci biir dëkk war nañ fi mën a sax murid bu moo ko dàq foofu loolu laa yaakaar kon buñ ci sonnee ba di ma woo di ma indi rek loolu ak rafet njort la yàlla na suñu borom dëggal seen njort yooyu di defal nu tawfeex dina defal nu mucc ak ko xéewal euh, ci barki Seex Xaadim asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. asalaamaaleykum jërëjëf sëñ Bachir kaddu yi matal na lool yàlla na taxawaay bi yàgg ci barkeb xasida xanaa amoon rek ay ñaar ba ñett bi liñ bëggoon a laaj jublu ci soññe jëm ci mbind mi lu mel ni ki wajaal tawali fi anwaran tanuur saatiatan bi hurmati nuuril munir ak eh, ida katabtu htaz arshul bi tasbihi kullu malaki waaw ñaari yooyu daal xam naa ne sëñ Modou xasida dina ko daan wax rek ñu daan wax ne xasida xas du te xas du borom eh, waaye may wax ne lim ci kaw gi maanaam kaw gi di liñ ci mën a dégg ci kaw di moom leer na lam ci jublu ci biir nag moo xam waaye kaw gi daal li muy tekki mooy wajal tawaalif ya anwaaran tanuur na nga def sama sama tawaalif yii samay taalif mu doon ay ay leer yoo xam ne day leer tanuur euh, saate atan mu doon ay leer yoo xam ne day jolli di leer fu mu toll bi xormati nuur ci xormay yonente bi sallallahu alayhi wasallam almunir da ko tudde an nuur almunir kay aji leeral mm-hmm. ci xormay yonente bi na nga def sama leer yii mm-hmm. sama taalif yii mu nekk ay leer yuy jolli fu mu toll. Mm-hmm. waaw leer guy jolli nag leer ndax fi mu toll nii euh, mbooloo murid mi fu ñu nekk di jàng xasida am na luy tàbbi ci seeni xol ci ak juboo ak ku bëggante ak jikko yu baax yi suñ borom def ci ñoom. Mm-hmm. loolu mooy leer yi nga xamante ne di gindi nit ki jëme ko ci yàlla. Mm-hmm. ni ko ñaan noonu la ko suñu borom defee. ci ba def ci lu koy ñor sax nag. ba ca des mooy ida katabtu tazza arshul maliki واهتز بالتسبيح كل ملك am na feneen beneen béy boo xaw dem noonu boo xam ne dafa xam ne ida katibtu tazza arshul baaqi wa sabbahat malaaiku tibaax benn xeet wi la loolu ba tey ci ci maanaam kaw mi la ci kaw mooy saa bu ma bindee arsh jaayu malaaka yëpp jaayu di sabbaal yàlla mu mel ni kon mbindam am na fu ko sunu teg ci abriyaay ba tax na Euh, bépp xol boo xamante ni liimaan mu ngi ci yow xasidaam yooyu dina yëngal sa xol ndax day yëngal aras di yëngal malaayka yi comme mm-hmm. yëngalul kon woyof ba ëpp nga def loolu laa jàpp ba rek ñaari bayit rek mm. demee ni kii fu mu koy waxe ci xasida chef ramadaan yi mm. euh, xare badar li mu toll ci lislaam mm. muy wax ne euh, maddaliya siral masuna man jaal xattiyee monsieur yow mi badrin fan jaxal bayit boobu daal am naa ni mu ko méngalee foofu mm. bëggoon naa ci ak leeral waaw loolu it ba tey noonu ma waxoon rek ci njëlbeen ci maanaam kaw mi liñ ci mën a déggee mooy def na sama mbind mu mel ni bésu badar bésu te noonu la ko defee noonu la ko waxee mu def ko mu ni bésu ba mel ni bésu badar te nekk na mel na ni bésu badar nag oh. kon badar moom mooy bés bi nga xam ni ci la suñu borom xaajale dëgg ak fen ci la jullit yi gañee ngañaay lu rëy lu leen bett loo xam ni keru daal mooy bés bi nga xamante ni ci la islaam amee woon ndam loo xam ni amaatul lu ne toll te du amaat lu ñu toll bu mukk muy muy bésu Badar bésu Badar daal ci la ndamul islaam taxaw kon mbindum Sëriñ Tuubaa ndam lu toll ni ndamul Badar bi daal la suñu borom wax ne def na ko ci def na ko ci si xaajale dëgg ak fen ak leer leer ak euh, leer leeral dëgg ak waaw loolu daal jërëjëf sëñ Bachir xanaa bay du may tëjee rek boole kook tuuti yi leeral ci sëñ bi ni mu daan soññe ci xaside yi hmm. muy xisa boo xam ne dama ko jële ci koo xam ne da jële ci ci waa barsàq yi hmm. nga xam ne da ko ne ku baax ki xam ne daawul sax ci tur wi hmm. daanaam da leen daan wax léeg-léeg leen ku mokkal xasida sàngam ma neexal la nangam wala ku mokkal génn xasida ne ku ko mokkal ma nett la xasida sàngam ci géej gi Euh, yooyu yëpp nekk ab soññe boo xam ne sëñ bi ko daan def ci xasida yi hmm. ak itam bayit bi may tëj rek mooy kitaabati kabatatil hmm. a leeral hmm. waaw kay jërëjëf euh, daana wax ne sëriñ bi daana wax ne yii saa dina geestu ab murit ba bëgg a def ci moom dara fekk xasida yi defal ko ci loo xam ni la mu doon bëgg a def daf koy far daf ko ci ruus def far kon loolu ab soññee la buy tekki ni Modou Borne fonk xasida ngir dafay wuutu jëmmi Sëñ Tuubaa ci moom waaw la jës mooy kitaabati kabati dafa jaara mooy sama mbind dafay këpp mboolem kàccoor yi wa fii sabilillahi lan ujaara mooy yoon yàlla kenn du ci rawante man mm-hmm. kenn du rawante man ci tabarakallahu jërëjëf jërëjëf yàlla yëgal jàmm ak sëñ